Eu digo que eu te vi igual Toujours dans votre scandale de ce 23 avril 2024 sur la chaîne des grands événements dama bëgg cette année vidéo bi dellu si ginnaaw bi nga xamante qui kii Ousmane Sonko yebal na ay ministres am foofu ca FMI ñu fekkee li nga xamante ni maanaam mooy Bretton di printemps 2024 pour wuti ay koppar yoo xamante ni dañ koy indi fii ci askanu Sénégal pour que nous a développer li ñu bëgg développer nañu déglu ñu vidéo bi dellu si soir. le fameux projet projet bi lañ jël jangat jangat ak mom dem daan bam ko mondial nan dañuy présenter projet nan eh, pour ñu financer le projet bu baaxut gaay di duñ leen financer lool motax ngeen dem jël président Macky Sall est-ce que président Macky Sall président Macky Sall la dé ki du ministre de l'économie bi bu jogoy bi ah jomay jomay vraiment sa ngour gi télé la nak vraiment li moy rupture li motax ñu génnee président Macky Sall fi li kay jarto ñu génnee bi président Macky Sall président Macky nee nañ dafa télé mënu dara après moom ngeen dem jël mu dem di leen utili financement mu dem di leen plaider au niveau international ah président Macky Sall nag kenn di yow. poñi nga ñu nag vraiment nag vraiment président Macky Sall boo jëkkoo day baale boo dégg jëkkoo del baale wala ngeen kii sax a à huis ah. mais photo yi vraiment man ma dëgg yàlla man dama rus quoi. ah ñu ñoo ko teg suñu bopp ñu ñoo woote rupture alors bu ñu wootee dara baaxu ci lii mooy xool kook sourire bi. ak xol bu rafet bi kii wóor na yàlla sénégalais xamuleen sax li ngeen def kii ngeen jëlee seen bopp réew mi wóor na yàlla yeneen réew ñu ko jëriñoo ñun Sénégal ñuy dellu gannaaw wóor na yàlla gisagoo leen dara gisagoo leen dara nit ñi fenn manipuler wax lu nekk président diaboliser ko ak askan wi naan ko dara baaxut ci mu dem tey ngeen wut financement yóbbu seen projet kenn mënut a plaider seen projet après ngeen dem jëlaat ko mu ñëw vraiment nag li dafa ruslu wóor na yàlla dafa ruslu merci beaucoup président Macky Sall ba nga sauvé waté Sénégal xam naa financement buñ ko jotoon wallahi euh, euh, fonctionnaire sax du ñu leen fay. kon ki la gis jangatam ci analyse bi moy le fameux projet bi nga xamanteni ni jaay nañ ko Sénégalais pendant dix ans Tout les solutions ñu bindu ko ci livre dal di koy tek bi len yalla tege ci bop réew mi fi ñu njëkk dem dañ jël projet bi jébal ko ñi nga xamante seen xam-xam dafa màcc jëm ci walu développement muy FMI li banque mondiale mais bi projet bi ñëwee lan lañ la wax allez revoir votre copie madame le fameux projet dara baaxu ci li ngeen wax ni mëna développer rew mënul développer réew ci kan lañu ñu sukkandiku maanaam ci mbaggu ki nga xamante moy le président sortant le président diabolisé le président traité de dictature le dictateur le président bi nga xamante tous les noms d'oiseaux jaxase nañ ko kook askanam ci koku lañu ñu ji li nga xamante moy sen ay mbag pour que mu revoiral len sen sen copie ba nga xamante li di Bretton Woods bi daal di accorder li di Sénégal lu toll ci 200 milliards en tout cas dama né ku yeb euh, ponkal da nga ko fekk muy nelaw waye ba mu yeewoo xam ngeen ni que kii mooy ponkal ndox te ñi nga xamante ne ndaw Ousmane Sonko la ñu demoon foofa ci nga xamante ne mooy Bretton Woods foofa ca Washington bañ fa fekkee président Macky Sall xam nañu ponkal dëgg la donc euh, en tout cas nit ki lépp lu muy waxate na suuraale ëllëg du añ du reer mais lu mat a suuraale la